بسم الله الرحمن الرحيم salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu del si waat ci deux mille cent soixante et un bi awnillahi wa tawfiqi di gërëm yàlla bu baax jullit Sénégal yi ñi ci mën a teew mu fekk leen ci Ndakaaru ñëw nañ bii démb ci Grande Mosquée euh, mu bari mbooloo lool donte ñu bari buñ koy jàppaat yegguñu ko waaye terewul yitteel na nit ñi ba boo taxawee ci diggu mbooloo mi day mel ni yaa ngi côté Palestine ndax nit ñi ni ñu soloo ak kol yi nga xam ni moom lañu gàlloo ñii def ko mbaxana ñi musooroo ko ñii def ko yére vraiment ay sénégalais ay palestiniens ay libanais euh, ay guinéens masalan Euh, couleur nit yu bare bare bare bare bare manifesté wu def discours ci arab ci anglais ci français ci wolof dénoncé Israël Amérique yenn réew yu koy jàppale soññi suñuy réew rawatina Sénégal cër bi muy amoon ci Palestine na ko génnee na ko jël waaye ni mu positionné woo ci mel ni ku tëddee njaaxaanaay na jël cër bi nga xam ni moom la war jël ambassade ñëwoon na xam naa aman nañ ci image yoo xam ne jombul dinañ ko dugal ci guddugu taskiru sabaa bi lañ man bariwul waaye tane na ndax léegi communication lañ toll ba ñu bari bu ñu demee ci réseaux sociaux yi dinañ gis ni Sénégal jullit Sénégal ñoom dem nañ ci seen grande mosquée ci ville bi ci capital de Dakar du Sénégal def nañ fa benn manifestation boo xam ni ngir ñaawlu li nga xam ni moo nekk ci Palestine ndax Palestine fii nu metti na metti na te mbokk yi fa mu mujj xaw ma kan mooy gañee xeex bi waaye eh, ñaaw na ba noppi rek ndax ñi moom eh, liñ gëmloo nit ñi mooy lu dellu ginnaaw ku ñu xareel ñoo lay daan eh, am nañu ñoom ñooy kumba am ndey te la xewen Vietnam ñu bari moom lañuy xalaat fii ndax bu fekkee ni dañoo préparé ñoom waa Gaza ba wut ay ay ay ay ay yoo xam ni li tax Israël ni ñoom jaaxal nañu ndax léeg-léeg duñ gis gaa yi fu ñuy jógee loolu gaa yi dañ ko préparé waaye nag ñu bari ñu ngi naa la amoon Vietnam ba mu fa amee ba ñu seen pax yooyu ñu doon dugg tunnel yi gars yi dañ caa sànni ay gaz yu leen di lakk ak ngi koy waajal fii mooy mbir yi fa muy mujj mën naa ñaaw lool waaye aaya bi ñu jàngal démb rek walaahu gaalibu ala amrihi walakin akthara naasi laa yaalamuuna yàlla lu yàgg-yàgg-yàgg yu bari xamuñu ko waaye mbiram mooy not mbiri ñëpp ñëpp ñëpp walaahu gaalibu ala amrihi waaye nag nit ñi xamuñu ko xamuñu ko de waaye fii jamono toll nii ci ngay jàngati démb noo ngi woon ci bala bala nu ko fàtte euh, noonu lislaam yi bi la lislaam dérangé ni ñu def jël seen temps ba compolo ba jaare ko ci leader boo xam ni daanaka daa jànge ci ñoom wala boog histoire li wax ñur na leen lool muy Mustafa Kamal Atatürk jiite woon dawla islamiya euh, ñu ñu ñu jaare ci moom te moom xam nga demoon na ba bew bay tere eh, ñuy nodd waxtu woo xam ni coroom day nelaw ñuy nodd mu ni waay man man ne fii sama coro nelaw nuy nangam ñuy nodd fii mu tere nodd heure boobu yu bari mu daganal ko yu bari mu xaraamal ko te yim doon xaraamal dafa dagan yim doon daganal dafa xaraam ko ku mel kay day yomb nag ngir nga jaare ci moom euh, noonu lislaam moom fépp fu bëgg yaatal xalaatam bu fa waayam faloo rek euh, waayam da koy defal <coughs> da koy dicté ay loi yoo xam ni euh, ñi réew mi jox seen baat di leen diglu ñooñee ñooy wote loi ya bind ko ci seen constitution wëlbati ko nu mu leen neexe ba noon yi am <coughs> lenn ci liñ bëgg di ko def ndànk ndànk ndànk noonu la ñu tegal xool fi mu toll nii réew ndaw yépp yëpp yëpp yëpp wala iyaasu mu metti lool waaye dajab démb bi dajab démb bi jàngate naa ci nii nit ñi bale gi am na ñoo xam ni ñoom eh, seen ngëm yàlla mi ngi ñu garde yittey jamono xàmmee nañ ko ak bu yàlla soxlaa bu yàlla soxlaa di gërëm suñu jigéen bu baax a baax a baax ndax yëkkati nañ benn table démb nii table bii ñu ngi koy jaay cent mille francs te xaalis bi yëpp dañ koy fexe ambassade Palestine mi ngi nii toog àgguñu ci waaye man may leeral rek euh, kon bu nit ne yeñ fa jaay xaalis bi anamu mbokk yi buñ ne ambassade réew sàngam mooy njiitu réew la représenté foofa te ñoom soxla ndimbal trop mbokk yi dañoo soxla ndimbal loolu kese lañ bëgg fi ñu toll nii ku leen dimbali ci garab lu mën a faj docteur ab dund wàllu financement laaju ñu soldaar laaju ñu arme ñu ngi bi ñu nee table bi ñu ngi koy jaay cent mille francs euh, Mouhamad Lamine nii cent mille francs yi tuuti na vraiment nañ ko jaay cinq cent mille la ñu daal yëkkati ñu ni soxna Ourey Thiam jënd na ko un million caam ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax baax vraiment waaye du bett keneen ak ci ko xaman Ourey mooy Ourey mu ngeen daa yéen ñi ko daa dégg ca RTS journaliste boobu defati na aw maninam bokk ci kuréelu islam yu wuute ci wàllu social ci wàllu yu baree baree bare bëri vraiment ñeneen ñu ci topp jël yu cinq cent mille yu deux cent mille ak ñi joxe fa saasa la la nekkoon ci seen poche ñu mën ko joxe am na ñoo xam ne ba léegi ay jigéen lañu ay ndaw lañu ndax ñoo fa ëpp démb xam naa dama ni xañ na ginnaaw ñi ëpp ci ñu rey ay jigéen lañu ay ndaw lañu jigéen ñi démb la génn ci alal la fa ëpp ñoo ko joxe bi ñu jaay beneen bi cinq cent mille suñu mag moo ko jënd maam bay ñaa moom it ñëw na démb jënd benn tableau bu cinq cent kon domp sax ci sot la bokk moo kii nattal tey li dal Palestine bu dalan Sénégal wal iyaasu billah wal iyaasu billah ak ngay soxlam dimbal ak ngay soxlam dimbal waaw mbokk yi ñu ngi ci ñaar fan ak juróom-ñeent tey joxuma juróom-ñett ba xare bi tàmbaleeg leen Gaza kenn kenn xamatul lu muy niru kenn xamatul lu muy niru xamuñu seenu mujj am na famille boo xam ne raaf nañ ba noppi raaf nañ am ñoo xam ni fii lañuy doxe doxee seen seen bopp wëlbatiku na ba noppi ñenn ñi ñàkk nañ ay cër ba noppi te ñu ngi dund ñenn ñi moom fi lañ doxe ñàkk alal ba kii lu méttee ngi nii dal leen kon jullit bu mu méttiwul jullit bu yitte woowul yitte jullit ñi bokkoo ci ñoom xaalis boobu dañuy fàttaliku fàttali lu bëree bare bare mbokk yi kon daje boobu jërul xeeb jërul xeeb discours yi lañ koy tasaare mi ngi ci internet bi laa nga yëpp yëpp alakula xaalin kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax baax baax e, jamono nag àgg la foofu tey jii nga xam ni kenn ku nekk li nga yor jàpp nga ni matiwul say soxla ñu ëpp ci ñun ñëpp laa wax nag li ñu yore euh, imam daam day wax ni nit ñi bu ñu xoolee li fi ne ci alal euh, nee na euh, bu dee téeméer nit yoo gis nee na ñaar fukki ya ñoo yor alal jooju nee na juróom-ñett fukk yi nee na séddoo ñaar fukki ya ca des ceet tet xoolal loolu rek xool ni àdduna tudde loolu foog mu metti foog mu metti ci bu ngëm yàlla ñëwul foog mu metti bi ci bu dundinu saxaaba ya dellu si waatul foog mu metti te danoo soreek saxaaba ya nu ñu dunda lool doonte noo ngi yor seeni dund di ko jàng di ko jàngale waaye ñi ëpp ci noonu xalaatuñu sax bokk ak li ñu yor nit ñi ndax ki lay gëm loolu ñu laan ah mbokk yàlla mi mën a jox ñépp te joxul ñëpp kat mi ngi fi mbokk boo fekkee juróom-ñeenti miskin nga bëgg leen a <clears throat> jox yaa leen di fukkeel mbokk njariñ loo fekkeel ak yu mel noonu ak yu mel noonu mbokk yi ma tuqaddimu <clears throat> ngeen baal ma lépp loo xam ni jiital ngeen ko min xayrin tajjiduhu inda allahi wa taqaddimu fi ko yàlla wax dafa bari lool lool aw yiw lu ngeen ci jiital nga xam ne jëf la wala wax wala jéene di ngeen ko fekk fan yowmal xiyaam yàlla dencal leen ko kii kon nañuy jéem a jiital di jéem a bokk li nu yor jamono bi yàlla cuunewul ba fi indi ndax dafa am idéologie yu gëm ni li na ci am am ci jamono daa doyul waa jamono moo tax ñu war di planifier waa ñu njur mi moo tax ñu war di ñoom ñuy créer ay guerre faat nit ñi moo tax ñuy def ay poisson yoo xam ni dañ koy jaare ci ay cube nit ñi di ko togg rawatina africain yi te kenn mun ko tere jigéen ñi jigéen ñi nañ bàyyi bouillon yi nañ bàyyi bouillon yi li ci saf loolu du xorom loolu du du xorom prochaine la mbokk yi lillahi wala rasul yi te bépp jigéen bu continuer di ko togg boroom kër gi tere na ko nga di ko nëbb di ko togg mel ni ko benn laaj def te fekk ëpp na ko moom benn ba sax bëggu ko dafa sañu ta bañ yaa ngi liggéey di togg defe yaa ngi am tuyaaba waaw yàlla na ko am yaa ngi am bakkaar ca wet ga rek mbokk mi waaw bi ñu waxee fan yii nii dañoo def recensement Sénégal dix-huit millions la léegi waaye góor ñi ëppoon tey jigéen ñi euh, euh, jigéen ñi ëppoon tey góor ñi ëpp loolu de liñ ci mën a jàngate mooy day mel ni euh, lawan rek moo am ba léegi mooy boo yow mi dem ci tudd yi ak yu mel noonu ak ndaje yi foo dem jigéen ñi ñoo fay ëpp lay eh, mel ni kon waaye am na feebar yu bari yu dal jigéen ñi mbokk yi li muy yóbbu jigéen ñi bari na bari na wàllu njurum doom li muy yóbbu ci jigéen ñi bari na mbokk yi waaw xeetu cancer yuy dal jigéen te du dal góor ndax góor amul ween ak yeneen feebar yoo xam ni wax yàlla solo na sénégalais yi trop africains yi trop trop trop est-ce que du loolu ba tax liy faatu jigéen ñi gën a bari ba lii am bu ginnaaw boo tegee fee nag ni mbirum sunu boroom la waaye jamono nit li mën na jàngate ci mbir yi walbatiku ba ba góor gën a bari jigéen ñaar baat njuum te mën na ci ama ah. ñi recensé mën nañoo juum mën nañoo juum mën nañoo juum ndax suñ borom moom loolu mu wax ci jigéen ñi nañ leen di jël ay soxna ñaar ba ñett ba ñeent boobee la programme woon euh, jigéen gën a war a bari góor waaye xanaa li nga ni kon xañ na déet ginnaaw ñëpp lu ñuy jullit xañ na loola ba tey léegi du ci feeñ waaye ala alin daal mooy liñ ci mën a war a gën a mën a jànge mooy mbaadu feebar yu bari yi dal jigéen di yóbbu nangami jigéen bu la noon euh, deux deux mille vingt deux ba deux mille vingt trois jigéen yoo xam ni feebar teel moo yóbbu nangam la nangam jigéen accouchement moo leen yóbbu nangam la da nga naa déedéet da naa déedéet waaw loolu nag liñ ci war a mën a jànge mooy mbokk yi nañu moytu nañu moytu li ñuy naan ak gi ñuy lekk jàngoro yi ëpp ci jàngoro yépp nit ki la koo naan wala mu lekk ko te dara gënta yées feesal sa biir lab loo mën a feesal loolu xadis la waaye kenn mënu ko tere jigéen ñi rek mbokk yi bàyyi leen bouillon yi bàyyi leen yi tere nañu leen ko waaw góor yi ñàkk pexe rek ki gën a nekk ci danger nag mooy koo xam ne li muy ndékkee am na bouillon li muy aña am na buyon li muy reere am na bouillon kenn gënu koo nekk ci danger kooku kenn kenn gënu koo nekk ci danger waaw ñetti yoon nga di ko lekk loo xam am na bu yow mu sax ci sa gémmiñ neex te kat di nga naanaale loo xam ni ah bëgg na suukar su bari bëgg nañ xorom su bari bëgg na lu neen fu ñuy wére fu ñuy wére mbokk yi waaw bokki kon jullit ñi moom ñu ngi noonu rek ñu ngi noonu rek waaye mag moo mën a faj boppam mag moo mën faj boppam mbokk kon noonu lislaam yi bu ñu kompaloo bay tas xilaafa gi ñu ko préparé commencé nag indi xalaat yu bees yu juyaloog ak lislaam lim gëmloo nit ñi ci yaaw fikrul wathaniya al ilhaadi wax naa ko démb indiwaat xalaat yoo xam ni euh, day safaanoog lislaam lool doonte wàllu ay xiram la sax euh, nañu ko wutal ab ministre dugal ko ci ministère de la culture sax waaye lislaam moom bu mu am wàll ci lu ko te képp ku wut parti sax bu jigee turwa l'islam sax léegi parti boobu mu jàll moo tax jamono ya Abdou Diouf jëkkee wax ni euh, euh, jàkk jaa ngi nii kum neex noddal suñu mag <coughs> Abdou Aziz euh, yàlla gën ko fa yàggal ni ah jàkk jaa ngi nii kum neex noddu kudul lislaam nee na égal bu fi kenn nodd nee na loolu mooy bu fi kenn nodd te wax na dëgg dëgg waaw euh, daal di lépp loo xam ne mu'tasila yi nga xam ni dañ leen a dañ leen a ŋan euh, dañ leen a ñi ci lislaam ñu dundal fikr boobu tasrifu kitaabatu taarix islaamiya lislaam taarixam ñu daan koy ñu daan koy defal beneen burion bu bokkul ak original bi ñu bindaat ko beneen bindu taarix bu ñëwee bu boo ñëwee senegal gi Lat am na xale yoo xam ni leen ko jàngale benn sanguinaire la woon boo xam ne rek daanaka taxu ko am solo waaw ak en tant que Lat Joor waxtu dab na ma xam naa ko ne asalaamaaleykum wa rahmatullah